gis ngeen ne stade bi di nga ne Modou Lo mooy egg si nii mais xeer yi commencé naa tàkk xeer yi oto yi commencé nañ tourné si di nga ne Modou Lo Ama mu ngi nii gis nga coow li gis nga xeer bi xoolal xeex bi di nga ne Modou oto Modou Lo baa di tourné gis nga gis mi ngi tourné mi ngi tourné booy pigi songu na ñen gis mu ngi nii lii lañ ngi yàq oto bi ñu ngi yàq oto bi yàq oto bi ñu ngi yàq oto bi ñu ngi nii ñu ngi yàq oto yi ñu ngi yàq oto yi làmb làmb ngi nii ñu ngi yàq oto bi xoolal booy xoolal